fis poap ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew asalaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur Rufisque info ak euh, ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre suñu page euh, bi nga xamante ne mooy suñu page internet ah tey nag Rufisque info dafay def ay déplacement di dugg ci quartier yi di xool seen dëkkuwaay ak seen dundin tey dañu ñëwoon fii nga xamante ne mooy ndënku ñu koy wax le premier quartier du Rufisque ñu koy wax ndënku pay ñu tax wax ak yi nga xamante ne mooy président du conseil de quartier bi nga xam ne mooy monsieur Seydina Ababacar ñaa tey Seydina Ababacar ñu am dégg ay activités yoo xam ne da ngeen koy déroulé si seen biir quartier tey Rufisquois ñëwoon di leen ci laaj lan ngeen bëgg a jotalale seen population. waaw jërëjëf soxna si jërëjëf c'est vrai que kontaan nañu trop si seen teewaay fii parce que yombul et c'est te ñu ngi leen siy félicité bu baax. li ci am solo moy li nga wax rek moy ne dañu nek conseil de quartier bo xamné conseil de quartier bu bess la bo xamné ne vraiment amaguñu ben expérience par rapport à conseil de quartier mais suñu gëm-gëm ak suñu volonté ak suñu engagement dal foog naa ne moo ñu animé surtout pour rendre service suñu quartier moo ñu animé à ce que ñu ñëw taxaw postuler wu pour mëna a xeex yenn jafé yi am ci quartier bi comme ni nga waxé lu melni par exemple si canal canal à ciel ouvert bi dañ ci am ay jafé jafe yu bari bi ñuy njëkkee tambali conseil de quartier bi objectif numéro un bi ñu njëkk réaliser ci quartier bi moy nettoyer won canal bi mu nekkoon nettoyage bo xamné vraiment population yépp yëpp génnoon nañ jàpp ci ñu si remercier ñëpp mais comme ni ngeen ko gissé comme ni ngeen ko gissé li c'est le problème de de des Rufisquois c' le problème de partout moy né dañu am problème canal moy né entretien bi surtout surtout entretien bi motax ñu né suñu conseil de quartier bi am nañu jeunesse boo xamante ne ne vraiment engagé wu nañu à pour service seen quartier ñu ne le 24 bii di ñëw dañuy dugal liggéey canal bi ñu si woo ñëpp nag di si woo quartier environnant yëpp di ci woo waa Ndunku yëpp surtout waa Ndunku ñu jiitu si loolu daal moo nekkoon euh, solo bi foog naa par rapport ak canal bi moom la waajal di waajalaat tamit yeneen activité yoo xam ne mu ngi ñëw ci kanam fi ak weer bi Euh, ci biir activité yooyu ñu gis ne tay jii nii temps passé ay le 9 10 février defoon ngeen fi activité bu mel ni set setal seen canal mais bu ñu xoolaatee tii même pas un mois dafa mel ni canal bi dara musu fi xew donc est-ce que du population yi ñoo war a xoolaat seen doxalin ci wàllu li nga xamante ne mooy set seen biir gox. waaw li nga xam na mooy ne problème majeur bi nag mooy population yi la moo tax dañuy sensibiliser toujours du ñu bàyyi di sensibiliser di fàttali ne nit ñi.

ben problème la ñu am ñun ñëpp muy sénégalais dañuy wax mbedd bour té dañuy faté ni ñun ñooy bour moy né né kon dañuy wara am conscience bu positive par rapport ak suñu suñu doxalin ci quartier yi foog na né lu am solo té dinañu gën sensibiliser nit ñi ci côté boobu dina suñu liggéey numéro 1 tamit ci loolu ci lay bokk ci ci priorité yi lay bokk sensibilisation donc yéen tey jii nii boo nee seen liggéey ci priorité la maanaam tey am ngeen yeneen envisagé ngeen yeneen projet yoo xamante ne mu ngi seen kanam parce que dañu naan conseil de quartier gouvernement local la donc bu ñu déggee sa wax maanaam gouvernement boobu taxaw na am na ñu ci nekk am na ay membre nan la nan ngeen di dundee loolu noonu seen biir. waaw nañ ko dañu doon tuddee sax par exemple suñu ay réunions les réunions de jeudi mooy le réunions de ndonku de jeudi mooy conseil de quartier bi chaque jeudi ñu ngi réunir depuis que ñu taxawal ko ci wàllu santé am na lu ñu ciy waajal ci wàllu éducation am na lu ñu ciy waajal ci wàllu culture aussi am na loo xamante ni ñu ngi koy waajal muy le 5 le 6 le 7 le 8 ñuy koy wax gumbe parce que tamit bu ñu fàtte ne ndënku dëkku cosaan la dëkku cosaan la dëkku culture la comme ni nga ko waxee sànq ndënku est le premier quartier de Rufisque moo tax dañu bëgg a organiser le 5 le 6 le 7 le 8 benn gumbe muy cosaanu waa quartier bi di loo xamante ne vraiment. dañ ci bëgg a ut ay moyens yoo xam ne dinañ am tuuti assise financier pour mun a gën a mun a ñogali yeneen yeneen activités yi surtout ci wàllu santé surtout ci wàllu éducation ñaar yooyu foog naa ñoo ci facteurs yi nga xam ne ñoo gën a pilote par rapport ak suñu engagement wu ren ba déwén ñu xool ci yeneen yan yeneen mooy di doon suñu priorité waaw ci damaa for rek ci wébu bay nekk ni yow da ngay def activité politique am nga tey ji koo àndal am nga responsable politique boo àndal mais selon sa vie politique ak euh, conseil de quartier bi nu mel nan ngay dundee ñaari vie yooyu nga xamante ne tey ji nii bokkul parce que mën nga ne ci conseil de quartier te doo am ambition politique ngay politique te am ambition ci quartier yow nan ngay dundee wàllu woowu noonu te dégg naa ne da ngay politique ci koñ bi yi ñuy ñëw si sa parti non question piège nga ma def fi mu toll a tontu a tontu mooy ne ne c'est amna fumu fété ci walu politique amna na doxalin boo xamante ne ko ci walu politique amna fumu tollu ci walu politique mais en âme et en conscience sama conseil de quartier bi nga xamné né ne waa Ndungu ñëpp ko bok na ci def effort bo xamante né politique duma ko ci manifester. amna benen casquette n'ak politique bo xamante vraiment buma tay ci politique mun naa taxawee neneen keneen tamit amna ko xam ko xamné amna fumu fété parce que conseil quartier tamit lool la ku nekk am nga foo fété mais li intéressé quartier bi foog naa ne ne du wàllu politique du wàllu politique mais dinañ si def suñu effort ak suñu kéemtalaay kantan ba politique bi politique bi ñu doon du feñ ci suñu comportement ci doxalinu conseil de quartier bi. bien sûr ndax politique moom c'est l'art de bien gouverner la cité donc.